bii moom da da ngay branché rek bii ngay contact. kon mbokk yi mi ngoog euh, muy accident bu am fii ak euh, oto bi jógewoon euh, ngi jëmoon Dakar benn bus bu yeboon ay nit du bus sax tey kaar la kaar Ndiaga Ndiaye kaar bi nag dajeeg li nga xam si mooy benn camion li ko waral nag mooy mbaam mi ci ci lañ jëm mbaam mi nga xam ne si moom moo waral accident bi ci lañ jëm dalal mi nag euh, bi. am yëg nag euh, ci la oto bi daal moo waral accident bi. Euh,

Modou quoi. ñu wax ak euh, Ousmane rek gars yi mel leen caméraman donc Parce de ces victimes qui étaient au niveau donc, des deux cabines, de la cabine du pavillon comme de la cabine donc, du, Donc les désincarcérations ont été effectuées Les victimes On a eu à travailler avec la Légion de gendarmerie qui ont eu à sécuriser, à établir euh, une large Monsieur de manière résumée, c'est ça donc la situation actuelle au niveau donc voilà donc ci ci wolof euh, monsieur le ministre man la commandant Amadou Fall commandé le groupement 5 présenté woo treize minutes après donc saa fi mu nekk effectivement ñaari oto yu mbëkkal benn oto camion la bu jógee côté Dakar beneen oto mooy horaire bu jógee côté Ngiy day day polarisé ngi village nekk Ngiy Sakal et Fonto foofu la jógee yeboon tamit ay passage bi ñu ñëwee ba fii donc les deux là ñu def accident donc secours yi bi ñu présenté woo treize minutes après il s'est trouvé que mu total quarante quatre quarante ci quarante quatre yooyu compter parce yoo xam ne si ay victimes cinq yoo xam ne si ay victimes ay a yem bay malheureusement ñu compter bu baax identifié même avec le docteur médecin chef district sanitaire de Sakane mu ñëw identifié sur place am nañu vingt ñàkk seen bakkan malheureusement maintenant l'ensemble de ces victimes là ak blessés yëpp évacué hôpital régional Dakar rek la Saint-Louis sax daanaka ñaari flèche lañ sinon est flèche yooyu yëpp yóbbu nañ leen hôpital bi donc loolu dégg amee pompier ñëw nañ en nombre ak ay moyens mais aussi gendarmerie ñëw nañ teel nañ ñëw ñu xàjji ñu bërëbu liggéeyukaay ba mu permettre ñu victime yi nga xam si malheureusement dañu kepp woon ñu mën leen jël temps pour génn leen correctement donc victime yi kepp woon ñëpp ñu génn leen yëpp ñu évacué oto yi nga xam ne si aussi dañu empiété woon sur l'emprise de la chaussée si tali bi ñoom tamit ñu def tout ba wàcce leen pour éviter beneen autorité yi teel nañoo ñëw le ministre du transport juste après

ak taal bi mooy suñu waaj ठीक है कैसे निकलो ठीक है जैसे निकलो सामने बाय कैमरा waaye non yoo xam da ngeen di xool ngeen di def ah yoo xam ne attends. Oh,